asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fattaahu wahaabu yaa rasaaqu yaa maliki lifta wa habdiya warsuqni ku ni aana dayqi asilan ajalan bil bishri mahmadin xata uqima li diinillahi arkana asiru joxay li tuuba waxmini waqini adal wara waltudib li sama maskana laka sama wal aradi wal hawaau bila musharikin leerut mashiku bana ajib wasalli bislimin xasanadi muhammadin wa tafli subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin amiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp fo noon waaye di man di digg rek rawatina nag sit bi ñuy wax al Xatimiyya sëñ Mamour Touré jiite ko ñu ko ci sant bu baax a baax ci yaatal gi ak ak sunu cameraman bu baax bi sëñ Waka ak Modou Diop moom nga xamante ne nekk Italie nga xam ne moo sàkk woon ñu def jotaay bi ngir leeral ci baat boo xam ne baat la bu am solo boo xamante ne sunu sunu réew yi jullit ñi moo ko moo koy àtte di bëgg xam lu mu doon xam naa xam naa kon di. di siyaare ci ci ci koor gi di ñaan suñu boom mu àggale ko jàmm te fekk la ñu ko déwén déwén déwén maanaam yoo xam ne mille mille quatre cent trente neuf yi ñu ñu ñu fekkee jeexeeti siècle ba ba ca topp suñu boom mën na ko di siyaare si si si si Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaan suñu boom defal ko tawfeex defal ñu ko. ba naalam boobu nga xam ne moom mooy jàngale mi selon taalim alaam alaam bi ma bëgg a def ci ci Touba lépp su boobu àggale ko ak jàmm salaam ñu ànd ko ko moom xam naa laïcité lañ bëgg a waxtaanee la laïcité baat bi maanaam daanaka amul njëriñ. baat nag baat nag bu juddoo dafa am contexte bu tax mu juddoo kon kon léegi contextualiser baat bi dana dana ñu noppal ci ñu xam lan la noonu nag jullit ñi ak cermandu si yëpp liñ gën a man mooy concept tubaab yi ak seen termes yi seen baat yi ñu di ko utiliser di ko jëlee ci contexte yi ko tubaab ba juddule woon indi ko ci suñ contexte yi xam ne ni bokkuñu loolu loolu ci waral na ak lëndëm gu am ci ci nu ñu déggee baat yi dara wul ko nag jombul mooy sunu borom xam-xam yi ñoom bala ñoo am lu leen neex mooy wax baat bu mbooloo mi xamut baat bu mbooloo mi xamut xanaa daal day mel daal am nux ba élite bi rek ñoom ñoo koy xam tànneef yi nga xam ne ñoom ñoo jàng rek ñooy xam lan la baat bay wëndu moo tax ba baat yu bari ñu ko ñu ko jëfandikoo te sax contexte ba sax bu bu bokkut ak contexte bi nga xamante ne ci lañ koy jëfandikoo loolu loolu dal lañu sax ba ci lislaam ji lépp lu ñu jëfandikoo ci ci islaam ci ay baat yooyu yëpp baat yi bu dee baat la boo xamante ne tey Arabie Saoudite ñoo ko juddulu wala Égypte ko juddulu wala Irak wala Libye Tunisie foo nga jublu rek ka fa jàngee bu dikkee di ko jëfandikoo nga xam ne ku dul ña fa jàngi woon du du xam loolu ak nangi ci ja jànkat yi moo xam yu tubaab bi la moo xam yu nasaraan bi la kon laïcité kon buñ ko bëgg a wax baat bi am na ñoo xam ne dañ naan ci arab ñoom mi ngi jógee ci ci almaañ yi mi ngi jógee ci ci science xam nga laïcité ñu ngi koy ñu ngi koy tarjama di ko di ko arabale baatu almaniya ñii ne almaniya ñaan almaniya xam ne nekkat baat bi mu ngi jóge ci maanaam science loolu mu wérut loola boo xam yu koy wax danoo bëgg nax nit ñi ne leen kat laïcité moo xam-xam moo ko avancé ñoo ànd te loolu wérut waaw dana am lu ci xaw a wér loo xamante ne danañ ci dikk waaye baat bi moom dëgg-dëgg mu ngi jógee ci al maanaam kon ci arab almaani yi lañ koy mas ah waaye du ndax alam la jógee alam bi maanaam ko koo xamante ne daal ku adduna la nit ku adduna nit koo xam ne dundul dundul du ab suufiyanke ca diine maanaam nasaraan yi booba du woon ab suufiyanke waaye koo xamante ne la day dund dunduk ordinaire nekk ca marché baag di liggéeyee ka noonu noonu loolu ñu tuddee al alkaxnutiya ñoom li jàppoon seen suufiyanke moom mooy bàyyi li ku dugg ci àll bi maanaam doo doo doo bokk ci ci jëriñ ñi loolu islam moom xam xamul loolu kon baat bi sécu sécu sécularisme lañ koy waxee nee na baat bi moom mi ngi mi ngi mi li muy firi mooy daal koo xam ne daal da dafay dund adduna te dundul yàlla baat bi laïc laïcité laïc li muy firi mooy benn waay boo xamante ne moom daa toog di di di dund addunaam waaye nekkul ca église ba ne ne dafa may yàlla boppam maanaam nga xam ne kooka kon bukkut ak ki nga xam ne moom ab kaahin la ab labbe la boo xamante ne ma ma nga ca église ba may yàlla boppam moo xam jigéen la moo xam góor labbe yi nag am na ñaari façon labbe labbe labbe boo xamante ne moom day dund dund gu metti gu wàñsu dem ca dem ca dem ci église ba maya maya boppam soo demee ci Vatican dem naa fa gis ay sax ay jàng yu ndaw ay jàng ñoo xam ne dañooy ne dañoo may seen bopp église bi loolu moom histoire bi yàgg na loolu loolu du ci dugg jamonoy romain ya ba tey loolu amoon na waaw amoon na sax ca ca jamonoy pharaon ya jigéen ñoo xam ne dañoo may seen bopp nee ñu église ba ay ay jikko yu bon juddoo ca ñëpp xam ne ko xam naa wala bokk wala bokk fii du kii am kon maanaa kon almaniya nga xamante ne mooy laïcité baat bi li muy firi rek mooy ku koo xam ne duggul ci duggul ci système église bi maanaam mooy loo xam mooy it ñu tàqale diggante état ak diine loolu lu ko waral lu waral ca ci Europe ñu demoon ba taqale diggante diine ji ak état xam nga ca li ñu tuddee middle age alxurunul wusta day wax ne man alxurunul wusta al Europe yi lay wax du ma ne alxurunul wusta al islamiya ndax alxurunul wusta yooyu mi mi ngi tàmbali woon trois cent trente sept miladi bi Constantin faatoo doomam yi séddale ko séddoo nguuram nga ba ca 1453 bi nga xamante ne Mouhamadul Fatih moomee di ab empereur bu jullit nu daanee nguur ga maanaam noonu ci 337 yooyu fekkoon na Gana taxaw empire da Gana maanaam léegi troisième siècle bi ci la taxaw kon noonu booba ba xarnul faamin almadi ba tey ba ca huitième siècle ba gana daan daanu mali jóg kon noonu fi ñu naan xurun wusta la middle middle age la foofu foofa noonu booba booba booba noonu islam booba islam booba mi ngi fu ne ba mi ngi ci ci Afrique kon moom loola kon moom léegi gi ko kon duñ ko mën a jàppe ne kat buñ ne xurunul wusta rek ñu teg ko noonu waaye dañ naan xurunul wusta al européen li waral loolu it mooy mooy ne toit bi daan guerre mondiale buñ ko waxee ma ne déet alxarbul alxarbul alami européen européen ñoom ñu doon xeex ci ci seen biir kon ñoom noonu ba ba ba européens yi di di xeex ci seen biir donte ne dañoo colonisé woon di di di xeexee ci sunuy terrain waaye taxul ñu ne nañ ci lañ bokk maanaam léegi su ëllëgee su histoire di àtte masala axlaaqi bi noonu du ca bokk masuul yi axlaaqi ya maanaam duñ nekk responsable moral ci guerre ba kon nag ñoom ko kon taw bi kon ñoom ñoo doon xeex waaye noonu xeexu ñu woon ci bu ñu demee ba 1453 boobu da da da ngay. da ngay gis ne kon maanaam am na am na lu lu judd leneen te te mooy lu ñu lu ñu tuddee dark age asu sulma nga xam ne xam ne léegi européens yi ñi ngi ci lëlëm këris ci xam-xam ya dem ndax booba booba nag iris bi booba not na lool da da trinité di di dëjë rek Constantine mi ak gaayam ñoo ñoo jëloon atte ba wax ne kat léegi Seyduna Isa léegi alayhi salaam maanaam ñetti élément la yu yu composé wu mu yàlla ak nangam nangam seen loolu ñu koy waxee wala su su lay voilà kon ñoom ilis bi moom léegi dafa am boobu am am doole foofu foofu nag ak cëriñ ak ngóor daal di ànd nekk benn tong ci kaw ñu ñàkk ñi. boobu boobu bu ci Europe li li ñu tuddee aslul ixtaa nga xamante ne booba xas xasul ixtaa mooy état bi day séddale suuf yi jox ko patron yi borom xaalis yi borom borom xaalis yi ñoom it jël ay béykat yi teg leen fa di di leen fay fay loo xam ne duñ ca mën a dund nga xamante ne bu la buñ la buñ la fayee session bu bu jàll buñ la ca fayee yow day des la maanaam da faaw nga ci nga lebaat sa patron ngir balaa session ba ba ñëwati ngir nga mën caa dund loolu ñu tuddee nga xëy ñu àdd jaamu suuf si booba booba église bi dafa dafa fardu ay itaawaat maanaam ay taxi yoo xam ne da koy da koy fardu prince yi. jëlee ndax booba booba ay mamalik booba ñoo fi nekk daal lay ne la kat faaw nga jox nu nangam ci session bu ne jaanu jox nangam loola ca la ca la ca la sëriñ si dund ca la ca la église bi dund loola bu amee prince yi moom it daal di daal ne ah daal leen nu kon kon nag ñu it dañuy dañuy daal di joxaat ay taxi yeneen ñu teg ko ci kaw patron yi bronxage yi ñoom it ñu ñu koy versi section bu ne ñu mën cee dund war cee jàllale lu sëriñ si dundee ñu ne waaw ñu ne nag ñu patron yi ne kon kon kat kon faaw ñu teg ay taxi kon ci maanaam léegi béykat yi loo xam ne ñoom it dañ ci mën a dund mën cee jàllale prince yi dund ca sëriñ sëriñ si ñoom it ñu jàllale ci sëriñ si dund ca boo seetee kon kon léegi silsila bi dafa daal di yaatu lool kon. xanaa kon ñi gën a suufee kon ñoom mooy ñi nga xamante ne ñooy ñooy daal remplacement yi ñi nga xamante ne ñoom jànguñu xamuñu dara ay béykat lañ rek waaw dañ leen di utiliser nangam booba am na booba lu lu lu église bi daal di tër nekkat léegi nag injil bi bible bi bible bi moom la ñu ne kat kenn du ko mën a firi kudul noonu ñun daal sëriñ si képp noonu ñoo xam lu bible bi wax bible bi ku ne xam ne ne dañ koo dañ koo dajale rek soo demee ci injilu loga wala wala mitiw wala ñooñu wala june nga dégg loga moom ab commerçant rek la doon bind bind ab leetar ne ko kan lii de moom laa dajale ci histoire Seydina Isa muy ab leetar loolu ñu tuddee injilu loga xam ne moom moom boo ko lire xam ne xel moom du kii moo tax sax seen théologien yi dañuy wax naan dafa am lu ñuy tuddee dynamique théorie am na lu ñuy tuddee dynamique théorie mooy nasariya dynamique ya maanaam léegi kii bind injil bi comme comme Louga wala miti wala ñooñu sañ nañoo soppandiku sañ nañoo daal ballu neñu ñu daal nañ daal maanaam léegi xol yi ispray mooy ruuxul xod ci ruuxul xudus yi moo moo leen di ilham maanaam léegi ñoom fekk nañoo daal wax loo xam ne Seydina Isa wax ko woon waaye dañ koy bal lu ci bari nañu nga xam ne kon loolu loolu moom lu leer la soo demee moo tax loolu day topp toit bi ba am ba ci ci seen théorie yi nga xam ne day day théorie si adab di wax ne kat maanaam léegi ab texte annasu laqiit texte moom dañ ko for rek ku ñuy wax Roland Barthes wax na ko ne texte texte moom maanaam kenn du seet ko wax ak fan la jógee waaye texte moom day nekk loo xam ne luñ for rek la xamuñu fo fa mu bàyyi koo léegi texte bi nag nag léegi la ñuy jéem a wax loo mu waxal ñu. loolu loolu it maa ngi wax ne nañ ko bàyyi xel ci wax ne loolu it ma nga jóge ci ñoom seen biwul bi ndaxte ndax comme ni alxuraan amee sanad diw ko nett diw ci yonte salaam ni ni addis amee noonu waaye ñoom ñoom bu dee nasaan ñoom amuñ ñu loolu ak yahudi kon foofa léegi gi- gi- ginnaaw église bi bi nee na moom léegi m- m- moom mooy xam te texte bi moo koy man na firi sëriñ si rek mën a xam lan la bi bi bi bi di firi ñu daal di indi indi lu ñu tuddee sukkook sukkookul xufraan lu lu moom it lu am solo la ndax booba sëriñ si su ab patron day dafay jëy am solo nit ñi def na nangam ba su ba bay bëgg a faatu jàq dikk ci benn benn euh, labbe ne ko da damaa bëgg léegi nag léegi nag euh, ñëw jéggulu yàlla ne ko waaw waaye jël kayitam bigam ne ko léegi waxal loo loo def damaa njaaloo mu bind damaa rey nit mu bind damaa trian it mu bind damaa def nangam bu- bu- bu- bu ba këyitoo ba noppi waa ji daal di ci xayma loola totalisé ko ne waa lii de moom kon faaw nga joxe nangam junni soo ko soo ko joxee léegi kon yàlla jégal la waaye daal di joxe bi joxe yaa yaa koy bindal ab ab këyit ne war a signé ko daal ne woon daal la man labbi diw man mi am autorisation maanaam léegi jéggal la jéggal naa diw mi ci li mu defoon ba mu joxee nangam nangam loolu loolu muy muy lu xoromu maanaam ñu ñu koy dund église bi di ko dund. ba sa Égypte gi rek ba ba léegi si xawma nag Sénégal waaye Égypte rek maa ngi digg Baba Sanoda ma faatu ci at yee waxoon di waxoon nag labbi yu ndaw yi ni leen kan nag di leen moytu di di defal loolu jigéen maanaam wéete jigéen mu lay wax ay ay ay ay bakkaram ndax loolu loolu lu wóorul ngir rek ragal xam naa maanaa léegi provocation sexuelle di am seen diggante waaye kon kon moom ba tey kon moom loolu mi nga am ñu ñu ñu dox tuuti benn allemand bu ñuy wax Martin Luther ci di dix-septième siècle dix-huitième siècle daal di ne daal di ne ne moom day moom gis na ne daal loolu moom wérut daal di daal di daal daal def benn ci ci religion culturelle bu am solo daal di ne daal moom benn mooy gëmut ne bible bi maanaam léegi sëriñ si képp ko mën a xam. loolu moom wérut ku ku digg langa bi mën ko mën koo firi ñaareel ba mooy su ko xufraan wérut maanaam kenn mënut a jégal bakkaar kenn ku dul borom bi ko bind daal koy taf ca église ba génn nangam église bi daal di koy daal di koy jàppee ñu tu ne ne kat moom dafa génn ci diine ji ne ne daal dafa andi biddaa tuddee ko xartaqa non nga gis salafis yi wax loolu yoo xam ne biddaa ñoom ñoo bind ne waa ji kat léegi xartaqi yi la xartaqa xartaqatun ci maanaam léegi ci. boo demee ci maanaam al kanisal misriya al orthodoxe yi ñoom ñoom noonu lañ koy firee xartaqa mooy ku ku andi lu bees ci diini yi. Martin Luther am na am na beneen waaye boo xam ne ne ay xanaa Hollande la dëkk wala wala Suisse moom moom it ñoo jamonante bokkoon ba ba ci solution ba xaar yi dëppoo bu ñu ko ñu wax John Calvin. moom moom it xaar yooyu mu daal di ko koy lancé daal di ne daal maanaam léegi loolu amut bokk na ci ci ci li waxee ñoom ñoom ñaar mooy ne kat léegi léegi kahnuutiye bi ñu am xam ne léegi di dund dundug suufiyanke goo xam ne doo tag soxna ñu ñu ñu loolu wérut waaw ab labbe dafa tag soxna ñu ñu ñoom ñu ne daal kon labbe yi war nañoo mën a takk soxna ndax gis nañ ne li juddoo ci labbe yi takkuñ soxna yaakaar naa ci ci ginnaaw rek 98 ak ba 2000 coow yu bari am na fi ci ay ñoo xam ne. ne ay labbe yoo xam ne dañ doon sëy ak ak jigéen ñi ci labbe ya soo demee Vatican rek boo xoolee jigéen ñi jàng dafa nekk seen col go nam boo nekk nangam nangam ak nañ mel toll ci toll ci dem kër ba noppi ne foofa ne ne léegi dañoo bay bayliku ay ay ay xale yu góor yu tolloog ñoom ne fa ku ku ne xam ne loolu moom mënut a jur aw yiw waaye lu ci mën di am. maanaam ba loola ba ba ba loola la amee ku ku ku ku mel ne Karl Marx dikk wax waxam ju siiw ja waxam joo xam ne day day day tënk loolu Karl Marx daal daal ne man daal man gis naa ne daal diine mooy man ajiinu fi notion diine moom drogue la day day drogué pëbël yi ndax nee na li ko jaaxal mooy fuqaraa yi pëbël yi lu tax mënuñoo yëg ne ñoom maanaam dañ leen di maanaam naa léegi. exploité lu tax mu ñu ko yëg mu ne loolu li waral mu ñu ko yëg mooy sëriñ si ñoo leen drogué ba mënuñoo yëg maanaam léegi léegi problème bi nekk lu waral sëriñ si di leen drogué sëriñ si dañoo lëkkaloo coalition entre ñoom ak ak ak prince ak borom xaalis yi ngir mën a jëriñoo nit ñi maa ngi maa ngi liir benn téere 18 98 wala yooyu 97 18 téere moo jëloon ci téere yi nasaraan yi ku am solo mu di mu mu mu benn ci làbbe muy critiqué naan naan waaw sëriñ si ñoom naka la ñuy mën a dëkk ci ay sato di dugg neex ba noppi naan ñu ci way ñàkk yi muñ leen ba ba ëllëg wala xel da ngeen am àjjana lu tax ne loolu ku ne xam ne loolu loolu loolu moom yéen maanaam muy lu am solo téere boo xam ne bi ko lire sama xel dafa dem ca Masalik suñu tubaab noonu noonu critiqué jamonoom waaw muy lu muy muy lu am maana kon kon da ngay daal di di xam ne kat kon maanaam kanisa bi kon wala église bi kon jëloon na lépp cor ko. li gën a rëy mooy mooy mooy mu gëmloo ni ñu leen mënu leen a dégg biwel bi bi biwel bi moom ko ku lu ab sëriñ mënoo mënoo koo xam looy looy lu am maanaa la lu am maanaa la ndax loolu maanaa li léegi ci mujj dañu xam ba xam noonu islam ndax nañ xam nañ laïcité am déet wala lan la ndax laïcité danañ danañu arrangé wala arrangé wuñu wala daal lan moo ñu arrangé maanaa kon moom. maanaa ci laïcité kon moo moo mooy ñu tàqale diggante diggante maanaa léegi diine ji ak ak état bi loolu nag bi tubaab yi yi demee nag ba gis ne ba gis ne kat loolu am na am na ci révolution française bi boobu xamante ne bu siiw ba xanaa di di di di dix-sept quatre-vingt-sept lay war doon. maanaa maanaam moom na nag tubaab bi nag gis ne kat léegi nag ah nun nun nun kat dëgg yàlla diine dañu gàllankoor waaye nag la ko la ko jiitu la la jiitu te loolu dañuy dañuy dem ci ba Italie ci Italie fekkoon nañ fa ca renaissance ga maanaa léegi Copernicus mille quatre cent soixante douze la ba mille six cent quarante trois moom moo indi woon benn théorie bu am solo fekkoon fekkoon ne église bi dinaa naan kat di wax naan suuf si mooy centre monde bi ñu ne est-ce que ndax ginnaaw li tax église bi wax loolu tegu ko ci science de maa ñu ko teg ci ginnaaw Seyduna Isa alayhi salaam kookee ñoom ñu jàppee ko ko ne yàlla la te nit ñi nit di di jë al aqanimu salaasa yi moo moo dajee ci moom doon doon yàlla maanaam al abuwul umur xursu bàyyi ba ndey ja ak xori esprit ñu ne kon nag bu loolu bu nekkee kon te te moom jëmm la juy dox ci ci ko suuf si dëkk fi am fi kër ñu ne kon nag kon kooku kon këram moo war nekk centre kon monde bi ndax ndax moom moo moo yilif monde bi ñu ñu ne ëskay Copernicus di dikk daal ne ne loolu di maanaam daal ci ci science bi li wér mooy ne suuf si da mi ngi topp jant bi jant bi centre bi monde bi loolu ko Copernicus ba mu ko ci waxee te moom kat ab labbe la woon labbe la la la woon ci cathédrale bu mag bu ñuy wax Frauenberg Frauenberg ca Allemagne. loola loola loola maanaam daal di daal di nekk lu rëy te moom kat téere bi sax ba mu ko bindee ba mu génnee théorie boobu da ko daal di jox addi addi yàlla ko ko ko maanaam pap bi fi nekkoon muy Paulus Astralis waaw Paulus wala Paul Paul trois ndax di ko wane ko wax lii de man ab ab góorgóorlu rek la boo xamante ne dama koo def waaye nag maanaam léegi sukkandiku ma ko ci texte yi diini yi loola ba ba ba amee ci ci gars yi ne ah lii lii kat suñ ko jàllalee kon dana indi ji ji gars yi dañ ne dañ koo maanaam léegi dañ ko wax di dañ koo àtte ne ne àtte tëj ko ngir dundam am nañ ñu ne dañ koo lakk lakki ay téeréem kooka kooka kooka it ba mu defee loola moom Allemagne lekk waaye Galileo ci ci Italie moom Galileo mu siiw moom moom it daal dikkaat waxaat loola daal di saxalaat nekkaat suuf suuf si day wër jant bi gars yi nañu keroog biñ ko àttee maanaam léegi ba ba ba fa deltu gannaaw ne daal loolu wérut waaye nag gars yi laaj ko mu sëgg di di di di di moroomam ne ko ah su ma nee suuf si warul jant bi du du tee suuf si wër ko waaw xam nga lu taxoon boobu booba dafa dafa ragaloon ne su su ko waxut faaw kon dañ koy rey wala ñu ñu ñu ñu sonal ko. loolu kon maanaam li taxoon na kon léegi iris bi kon boo boo ba kon mu ragal xam-xam loolu it loolu it nag fépp la ba ba ci suñu islam yi maanaam maanaam même sëriñ koo xam ne teguwul ci logique teguwul ci xam-xam day day ragal ci xam-xam loolu loolu moom fépp la kon kon léegi ñu ngi ñoom ñoom iris bi ko ñoom dañ doon aar seen pas-pas yi ndax léegi isa yàlla la yàlla mi ngi dëkk ci kaw suuf kon léegi yéen maanaam suuf si topp keneen doon doon nga jant bi kon moom léegi nag ginnaaw léegi nag église bi kon gàllankoor na xam-xam nga xamante ne léegi kenn mënatut a mënatut a xalaat xalaat boo boo xam ci xamante ne dafay wuuteeg texte yi te texte yi wérut ndax texte yi ay nit ñoo ko ñoo ko ñoo ko falsifié ñoo ko créé. te science xel ñëw na ba gis ne lañ doon wax wirut waaye nag su loolu amee kon léegi pas-pas yi day day daal di màbb su màbbee sultab dooley sëriñ si day day daal di naan a jeex loolu kon moom lu am solo la mën nañoo fàttaliku Malik ibn Anas radiyallahu anhu ba mu waxee ba ko waaj a fekkee ca. fekkee ca jumaa ja ne ko ne ko day damay laaj ku ñu forcé ne la fasel sa soxna lan mooy àtte ba mu ne ko parce que ma dëggut tëj nañ ci Malik ay weer sonal ko ci lool ndax loola booba booba laaj bi du laaju fiq laaju politique la mooy kat bóor bi nga xam ne daa bëgg ñu jaayante doomam forcément ndax loolu jaayante ga dana dog wala lan dana wéy wala wala déet loolu sax moo indi woon sax borom xam-xam yi mujj nañ ku ku laaj question boo xam ne dañ caa yéeg ne politique am na ca ñooy la wallaahu alam yàlla gën na na na xam ndax booba sëriñ bi bu nekkee di jàngale day am ay ay espion yu nekk ci biir jotaay bi di xool ba xam li muy wax ndax am na lenn lu ci laal politique bi am déet. loolu loolu moom moom it daal lay am ci ci église bi kon xamante ne kon ñoom duñu nangu lenn loo xamante ne day day weddi wala day am contradictoire ak pas-pas yi nga xamante ne moom lañ ñoom tëral ñoom maanaam ci ci ci ci ci nag biñ demee ba ci renaissance nag mu maanaam dix-septième siècle bi am na ay université système laïque yu juddu ñu ne ñun daal gis na ne bu ñu toppee église bi li muy wax kon léegi xam-xam du avancé kon léegi nu ñuy def léegi nañu daal di delluwaat ca Yunaan ca maanaam jamonoy xërëm ya jëlaat jaamu ay ay xërëm te te booba it ñu teg ko nag ci science. ndax ñoom xam ne moom la xërëm yi boobu maanaam contrôle science daa dox fee maanaam léegi science dox fee kon ne nañ jël diine te teg ko fële ca érigé te bàyyi dëgg nit ñi ci mbedd meeg ci école yeeg lépp mu nekk système boo xam ne laïque la foofu foofu foofu danaa fi indi loom solo mooy nga xam ne noonu projet Sëñ Muntaxa bi bu dikkee it nga xam ne du xam ne du nekk projet boo xam ne du nekk projet boo xam ne dañu naan la kat projet murid la waaye projet islam la noonu ni nga xam ne moom la ko sëñ Murtala daa waxee ndax boo xasee wax ne projet murid la da rek kon kon la daloon église ba da dañuy daal di mën a dal mooy mën nañu faa jàngale loo xamante ne maanaam léegi ay intérêt amul rek la waaye duutu duutu intérêt re mbooloo mi ay université daal di juddu yu bees bu dee ci Angleterre maanaam léegi aljamaa il malikiya lil ulum nga xamante ne mille six cent quarante cinq yenn dongaay philosophe bu bu bu mag ba te mooy Francis Bacon ñoo ko daal di maanaam maanaam naa sos nga xam ne léegi booba université dootu sukkandiku ci texte yi diine yi waaye mi ngi sukkandiku ci ci ci lu ñuy mën a làmb daj ko loo xam ne mën nga ko ci vérifier mu wér wala wérul waaw professeur bi bébé kon mi ku ne xam ne ne moom it moom it moom it ci jàng na ne ci na ci jullit ñi waaw moom xam nga xam ne léegi noonu noonu noonu noonu mu ne science faw day tëru ci lu ñu mën a lambat daj ko waaye du lu ñuy mën a du lu ñuy imaginer rek noonu loolu loolu ci jullit ñi la ko kii waaye doo doo ne jullit ñoom dañoo bàyyi seen waar bu yàgg ñoom ñu ne boobu boobu université ñu ne nag ñoom ci ci ci biir université bi kenn du fi waxtaane maanaam diini ak politique nga xam ne ne diini politique da da dafay tardeel science ñu ne diini politique daal moom léegi kenn du ko waxtaane ci ci ci biir université bi waaye li ñu waxtaane rek mooy science rek xam-xam boo xam ne kenn mënut mënut a jaar feneen ba dax ko mu am beneen académie loolu alférence yi juddu académie bu mag la boo xamante ne science rek la la la lay wax nga xamante ne maanaa léegi Descartes ñoom ak Pascal Gassendi gaa yooyu ñoom ñoo ko ñoo ko doon xalaat nu ñu fexe ba def ko xam ne léegi moom maanaa léegi dolal ji xam nga foofu sax entre parenthèses da nga gis ne Descartes ba mu indee discours de la méthode ba. nga xam ne dinañ téere bu am solo bu am solo boo xam ne boo ko liiree te ñu ñu ñu ko tuddee ci arab xitaabul fil manhaj wala maqaalun fil manhaj kon ne xitaab bi mu mu gën a wér maqaal bi loola loola bi ñu ko indee nag daa daal di lay daal di ne nag téere bi rek kenn du ko kenn du ko appliqué ci texte yi diine yi. ndax leer na ko ne bu ñu ko ci appliqué kon léegi moom dañuy dàq di di diine ji loolu lam ci jublu lu woon mooy rawale téereem bi bañ léegi église bi jàpp ne kat léegi moom daay ñëw ngir kontar seen seen intérêt yi seen parce ci ci ci passé yi kon moom boobu boobu académie mi ngi mi ngi tàmbali liggéeyam ba ci 1666. loolu loolu moom nga nag xam ne kon boobu nag daal di ne daal léegi moom science képp lay jàngale moom du waxtaan ci diine ci politique dara science rek loo xam ne daal moom da nga koy mën a la ci yaram daj ko loo xam ne daal daf dañ koy gëstu ba mu weer ci ne lii moom xel yëpp d'accord nañ ci ne am na waaye du lu ñuy imaginer dara loola nga nga ba mu amee ci ab benn académie boo xam ne moom feeñ na ci Allemagne Berlin Berlin. maanaam le Leibniz philosophe bu mag boobu moo ko sos mooy mu ci mille sept cent xam ne dix sept cent yi ci ci la juddu nga xamante ne moom moom it mu ne daal moom alxem moo doon maanaam liñ mën a gis lay lay jàngat boobu université moom du jàngat mukk loo xam ne mu ne su ko làmb daj ko waaw waaw léegi nag ñu dem ci kon renaissance. maanaam booba nag science daal di daal di di nag tàmbali nag juddu gars yi nga xam ne ne ne booba booba Espagne na fa na fa islam dugale woon xam-xam foofu ñu wax ne lu am solo maanaam léegi jullit ñi ñoo njëkk a defar ñoo njëkk a créé pharmacie xam-xam pharmaceutique boobu ca Bagdad pharmacie am fa ñu am xam-xam bi nit say dalayaan yi koo xam ne dañ ne ab pharmacien la te ciy taxasus boobu boobu am na booba Irak fa la jógee ñëw fële xam ne boobu julli am na lu ñuy wax op maanaam ci ci hospital hôpital hospital hospital baat bi li muy firi dëgg-dëgg mooy hôtel bu buñ mën a noppaloo nga xam ne julli ñëw dañoo jàpp ne soo wéree dee da ngaa aaji foo xam ne barab boo xam ne day amee fleur amee nangam garab mën a féex nga mën faa dikkaat waaw du dafa dund gu neex bi bi bi ñëwee Espagne ba ba ni ko fi ci la tubaab yi jël hospital ñu ñoom ñoom xamuñu woon hôpital ñu ñoom sax xamuñu woon sax maladie maladie maladie wéradi jullit ñi ñoo ko jàngal nga tubaab bi ci Espagne boobu boobu boobu tubaab yi dañoo jàpp ne maladie mooy ay rab ku sa bopp bi metti ci rabal jàpp ku sa biir di metti rabal jàpp ku sa tànk di metti ci rab la léegi nag rab moom mënuñu dara li ñu mën mooy yóbbu la ci app ko ca église ba denc la fa nga nga wér mba wéroo jeex na maladie nag kon maanaam leen nga xam ne maladie luy gaar la jullit ñi ñoo ko jàngal tubaab bi ñu leen kat maladie am na luy gaar la mën na génnaat ni mu duggee woon di la mën a génnaatee xam-xam boobu jullit ñi ñoo ko jàngal tubaab bi muy lu am solo loolu loolu maanaam ñu xam ne tubaab bi tu- tu- tubaab bi fii ñu départ di wéy ci juróom ñi lañ ko jëlee waaye juróom ñi dañoo taxaw Espagne la- la- la- lañ taxawee humanisme daal di juddu mooy nasal insaniya maanaam daal ne léegi doon xoolatuñu ne léegi yàlla ak yàlla yooyu yëpp amut noonu suñu nekk ci bu amee it suñu nekk ci ñun daal li ñu xool léegi mooy nit foofu lu am solo la lislaam moom da doon xool yàlla ak nit yàlla nit monde bi ñett yooyu la doon xool waaye noonu bi bi islaam rek maanaam léegi amee njiitu jiwul fenn ca la loolu lépp naaw yàlla yàlla ji ñuy wax lépp ci léegi jubluwuñ ci rek lu may maanaam benn sulta benn pouvoir bu buñ bëgg a incarner rek waaye jubluwuñ ci ñu gis sax yàlla mi ngi mi ngi mel ne ku naa la kennal sëñ Tuubaa jublu ci kennal sëñ Tuubaa kennal boppam donc la ci jublu day dafa bëgg a incarner benn pouvoir boobu boo xam ne mystique la mu mu xam ne ci teg ko ci mit boo xamante ne kenn kenn xamu ko xam ne maanaam am na ko jox Francisco Pétrarque ab italien la 1304 1374 xam ne moom da doon da doon woote loolu ak Erasmus al al ab hollandais la mooy 1469 1636 nga xamante ne ñoom daal dañoo waxoon ne daal ñoom kat seen seen seen théorie mooy nañ yittewoo nit te bañ a yittewoo maanaam léegi ay yàlla ak yooyu. maa ngi déglu ci ci ci ci télé bi am am kilifa gu ñu wax gu ñu wax gu ñu koy wax ne di ko wax ne ko moom ci humanisme la gëm mu muy rey mel ne mel ne loola day dafa am solo waaye fekk ne solo sa bëriwul lool waaw bu dee islam moom du du li mu xam mooy yàlla nit monde bi waaye xamut nit képp xamul yàlla képp xamul monde bi rek tubaab bi rek moom dañu moom nit dong la wax waaw moom moo tax tubaab bi maanaam bu. environnement bi yàqu yow nuyu si dana nit te kat environnement bu yàqu nit yàqu waaw waaw loolu yaakaar naa sommet bu France bi ku ne xam na ko noonu noonu nga xam ne ne ne ni lañ coowee maanaam naa léegi chaleur bi jóge ci usines yi yeeg pënd beeg nangam nangam ni mu yàqe jaww ji kon kon. Voltaire moom it daal di dikk dikk moom Voltaire ci ci France Voltaire 1894 ba 1778 jàpp ne daal moom nit rek nit Voltaire moom moom ku xorom la mooy bari bari na ci joo xam ne moom daal considéré wul yàlla ci après garaawam dëgg dëgg góota góota allemand boobu. mi mi 1749 la ba 1832 maanaam ku ku kii la borom xam-xam la bu jàmbaare waaye nag ku bañ lislaam la waaw lool lool lool nga xamante ne ne loolu lu kon boo ci dikkee li li li nga xam ne moom la Hegel waxoon Hegel benn philosophe allemand la bu mag 1770 la ba 1831 la mu waxoon ne xel. la la région xel ci caatul ndax da ci renaissance ci tubaab yi ma nekkutoon di xool monde bi ne nekkat lu lu ñàkk solo la wala adduna la la ju ju amut solo waaye da koo xool ne lu fact la maanaam réalité la lu am la loo xamante ne mu ne su koo ñàkk a xool léegi gars yi bàyyi fa yàlla ñoom di di xool nature bi ak nit loolu kon lu am solo la ba ñu demee nag ba France moom rek ci ba 1905 nag ci la France moom nag nag daal di génne benn loi nekk na léegi diine moom ca église ba waaye état moom ak nit la léegi loolu bu dee léegi kat. laïcité li ko juddulu mooy laïcité mooy diine dafa doon gàllankoor dund doomu aadama mooy ay sëriñ ay prince ay patron ñoo toog ci kaw ñi ñi ci des ñëpp te foo fekk ne ñooñu ñooñu duñ bari sëriñ si bëri wuñ prince yi bëri wuñ patron yi bëri wuñ ñi ëpp mooy ñu ñàkk ñi benn maanaam léegi sëriñ si ñu nekkat léegi texte yi bi maanaam ju jóge ci yàlla ñoom nee ñu kenn du ko xam ku dul ñoom ndax ne kon dañoo coloniser xel yi coloniser it suuf si économie bi ñu jël ko léegi léegi ñu ñu ñu ne it science kenn du am droit xalaat lu may xaar bi dafa dëppoo ak nu noonu sunu sunu commentaire yi wala boog ni ñu analyser texte yi lañ ci jëlee suñu commentaire képp yow moom moo nga mën a sukkandiku ne loola moom la science nangu waaw nun ci islam nun nun xamunu alkahnutiya nun nun nun xamunu maanaa léegi diine joo xam ne daa considéré déréwul xel noonu alxuraan bu dee wax lu wax gu day globalisé yëf yi globalement lay wax alxuraan dugg ci ay détails maanaam léegi moom moom léegi ay principe lay indi teg ko xel principe lay lay waxee xel du wax ci ay détails principe yi lay joxe principe yi alxuraan wax yëpp xel nangu na ne maanaam léegi dëppoo nag moom kon noonu laïcité kon noonu foofu kon day mel ne kon dàqu na nuñ kon mën nañ ko bañ a soxla waaye nag am na leneen muy ak cëriñ goo xam ne dafay tong ci kaw xel yi bëgg ne kat léegi moom moo moo xam texte yi diini ji loolu moom am na fi fi ñu toll am na ku ñuy wax Louis Farrakhan ummatul islam ci Amérique moo ko moo moo ko jiite yaakaar naa ba tey mi ngi dund 98 lay lañ gise woon keer moom day wax ne. ba dafa benn conférence bu am solo wax nañu ne nee nañu kat su ngeen dee liir alxuraan bu leen ko bu leen ko liir ci salon wala boog bu leen bu leen ko liir jale awee ko ci tafsir tafsir yi mu daal ne alxuraan soo koy dee liir da nga koy posé say question ma tontu la loolu am solo la wax lu am solo noonu bu ñu dee bu ñu dee jàng alxuraan dañ daan dañ daan Ibn Kasir la ñuy liir wala ñuy liir maanaam léegi jaale ñu wala ñuy liir beneen tafsir kooku mille mille nangam la woon wala quatre cent nangam la woon nga xam ne ay junni at dox dox suñu diggante ba noppi ñu ñu bëgg caa déggee suñuy problème yi bopp. loolu loolu moom kon moom day mel ne ne kon ba tey kon am na kon sulta diine boo xam ne pouvoir boo xamante ne mystique la boo xamante ne mi ngi gàllankoor xel yi ba xel yi mënuñoo gëstu dëgg-dëgg dëgg-dëgg. waaye loolu moom ginnaaw amuñu ab ak ak ak ab cëriñ goo xamante ne daay yilif nit ñëpp cëriñ gi daanaka day da ngay nangu mu yif la boo nanguwut mënu mënu la ci la yif kon moom kon moom kon moom garawut kon da ngay daal di gis ne kon ba tey kon foofu kon kon léegi laïcité kon moom léegi posé wu fi maanaam lay lay laïcité kon moom léegi posé wul foofu problème noonu l'islam demal ca maanaam léegi nu ñu ko waxati fa fa arab bi ñoom demal ca Ibnu Sina demal ca demal ca ca ca waaja Faxru Dinasi Ibnu Sina kitaab bu ñuy wax alxanuun fi tibb téere boo xamante ne médecine ñetti siècle ci Europe ca Espagne Europe gépp médecine ñu ngi koy jàng ci téere maanaam léegi Ibnu Sina téere ba ba ca des xam ne boobu ba tey moom it mu xarar la ñu ko jàng ci ci Europe booba maanaa léegi mooy alxawi fitti bu lii fa faxru diin ras yi te fa faxru diin ras yi moom rek ab mu arix la historien la maanaa léegi suufiyanke la ab médecin la ab faqih la usuli la lu ne la boole ba noppi doon ab scientifique dëgg kon islam ko kon duñ xamut loolu maanaam léegi teew théologien la maanaam xam ne moom léegi xam-xam yi islam yi for yëpp da koo boole ba noppi nag doon ab scientifique kon duñ kon duñ islam kon moom amul problème laïcité demal ci xeexaloo diin bi nga xamante ne moom jege na ñëpp maanaam maanaam xasaali am xasaali ma ngi cee wax lu am solo nekkat lu tax fuqaha yi nekk di jàng fiq rek bàyyi bàyyi fi médecine te médecine mooy mooy fiqul abdaan nit ñi bu ñu wéru duñ mën a julli duñ mën a jaamu yàlla xoolal te kat xasaal yi moom kat léegi xam nañ ne kat ab suufiyanke la faqih la usuli la théoricien la lu bëree bëri la ba noppi li muy nekk nekk ci xalwaam ya teewul mu xam ne jëmm ji bu wérut du mën a jaamu yàlla kon nañ fexe ba lu jëmm ji man fene kooku kon lay mel ne kon am na nag gaa yu naan la xasaal yi moo tax ba science daal di am gàllankoor ci ci li déet loola loola émirus di moo koy tuumaal loo xam ne nii wérut man naan ko Xasaali li ne xanuunu sababiya al xanuunu sababiya maanaam léegi cause yi xam ne moo am lu am lu ne cause ba ko tax moo am mu ne mu ne loolu nag bu bu du du lu sacré du du du si mu xaddas ndax booba ñoom flash bi dañu doon waxtaan ci maanaam léegi mujisa mujisa mënut a am. liir naa benn journal ay 92 wala yooyu du dugg ci benn avion jël ci benn journal di di ko liir arabe la mu ñu tubaab yi di di di indi théorie naan kat Sayyiduna Moussa alayhi salaam loolu ñu loolu ñaan dafa xar géej gi du aw ca du dara ñu al jisr wal madd la daa xam booba géej gi jamono yi nga xamante ne ndox mi day tal gu mën ci aw loolu xam ku ne xam ne ne woyof na ndax loolu bu su amoon Firawna mi nga xam ne mi ngi mi ngi am. poire bi mu yoroon nag yor ab xam-xam kon moo moo war a gën a xam Moussa loola kon moom maanaam ñi naan imam Xasali kat léegi dafa moo tax ba science daanoo ci réew ji ñu déedéet moom moom mu'jiza la bu ko xam ne déet mu'jiza ki tegoon loi yi adduna bi nature bi moo ko xotti te bu xotti it noonu noonu Moussa xotte woon xotte woon luwaay nature bi aw ci ndox mi loola booba Moussa dafa dem ba ñu sëkkatal ko amut pexe yàlla ne ko jëfandikool secret bi ma la jox mu jël jaroo dóoru ci ndox ma mu kii waaye ba mu génnee géej gi rek yàlla ne ko noccal sa yot mu nocci ko ndox mi daal di melaat na meloon luwaa ndox mi daal dikkaat Firawna ma ma nga xamee ne ne dafa rëy ba mu mën mën a tura dëpp ndax mbooloo ma sëkkatal nañ ko ba mu ci duggee ba Moussa xëccew yatam dafa daal di lab kon Seydou Imam Xasali daal ne kon loolu kon léegi aada la li liñ jàpp ne lu mënta ñàkk la lu waay nature bi aada la jublu sax ne aada la bi maanaam aada maanaam daal aada ji mooy yàlla noonu la aadalee adduna borom aada ji nag su ko neexee mu xotti ko loolu loolu loolu kon te lañ ci déggee kon ne kat ah kon nag bépp université bu ñuy taxawal ci réew jullit ñi la ci gën a gën a gën. comme Égypte Al-Azhar googee Égypte lu am solo Al-Azhar boo fa dee jàng duñ la gëmloo dara ñoom daal xam-xam lañ lay tegal lislaam ngi nii ay école la école sangam école sangam baa ngi nii siyaa yaa nga ne sufiyanke yaa nga ne sunna nangam matridi ak xaw ma nangam léegi yow xoolal yow en tant que borom xam-xam wala kuy kuy kuy xalaat lan moo la gën a arrangé ci lii jëlal fekk dañuy wax ne musaab yaa ngi nii yow musaab bu bokk nga nagam ñu ñu la kon am am maanaam léegi jàngal loolu loo jàngal loola neex loolu yaakaar naa it lu am solo la loo xamante ne projet bi mu taxaw bi bu dikkee noona la lay jaar maanaam kenn du forcer kenn ci gëm loolu la dara li ñuy gëm loolu mooy islam lañ lay jàngal bi la bi lay jàngal sëñ Tuubaa dañ lay jàngal sëñ Tuubaa mu nekk histoire jàngal sëñ Tuubaa mu nekk ay théorie nga nga nga xool yër anasi la jëlal anasi la sànneel xam-xam rek la xam-xam du dune lu lu ñu gëm dañuy wax ci la philosophie ne xam-xam lu ñuy xam ak lu ñu gëm bokkut. xam xam bu bokkut gëm moom force la mën naa am day am doole ca forcé ba kii xam-xam ne moom dara doole ca forcé xel rek la te xel ni ko Descartes waxe woon mooy adalu xismatin fil wujudi mooy al-aql xel moo gën a moom la ñëpp yem ñëpp ci yem donte na ko ko daas sa xel day gën a ñaw boo ko daasut sa sa xel ba bañ a ñaw kon laïcité kon day mel ni kon posé wut problème ci ñu nun jullit ñi ñun amuñu amuñu problème mu laïcité ñun suñ diine benn aaya boo xam ne am na contradictoire ak science amut amuñu ak sëriñ goo xam ne day suñu bopp yi déedéet su ab sëriñ yaa koy jox sa bopp na na na na mu la neexee sëriñ ba it yilifal xel mi sëriñ ba li li li alxuraan digle te mooy nañu bàyyi xel yi mu libre bu dee sax maanaam tux bon wala yamba wala drogue. islam ne bul ko def ndax day tax ba sa xel mi lëndëm loolu lépp luy lëndëm nag xel nag islam da ko araamal xamante ne kon islam dafay xeex luy lëndëmal xel kon ëpp sëriñ suñu laa lëndëmal sa xel bu dee nag sëriñ su xew si léegi ñoom bari na loo xamante ne dañuy wax nit ñi loo xam ne ay mythe la yu jëm fenn yoo xamante ne ne jombul bu nit ñi jàngee projet si si taxaw bi bu accès ba ñëpp jàng la si Mourtala waxoon bu ñëpp jàngee naxi jeex subhaanahu wa taala ne loolu waxam jooju yàlla nañ ci ci àgg kon daal laïcité kon mi mi ngoog baat bi ab contexte sàngam ci Europe moo ko juddulu sëriñ saa amoon coalition ak état ya fa newoon ak patron ya fa nekkoon tong ci kaw ñu ñàkk ñi di leen dunde loola tax gaa yi def rével révolution bu mag daal di dagg seen diggante ak sëriñ sa ak diine ja loolu loolu nag andi na ak weddi for diine moo tax it danaay wax ne sunu sunu sëriñ si yàlla ñu fi yàgg yàlla ñu yàlla yàlla aar orienté leen ñoom it ba nga xamante ne nit ñi duñ leen weddi nit ñi bu leen weddee yàlla lañ lañ weddi nit ñi xamuñu yàlla xamuñu yent bi waaye sëriñ si lañ xam kon nag sëriñ si ñoom it nuñ gën a mën a delawaat ca nday téere ba muy alxuraan dem référé wu ci sunna wéttili ko seen waxi maam ya yaakaar naa kon kon suuba lépp jag kon lay si si si si déngoog salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu